xibaar xibaar ci RFM une heure di benn waxtu jot ca corniche ak plateau ñi dikk ak yéen ci xibaar yi. El Hadj li ci gën a fës ëllëg Ousmane Sonko ak bokkam ci wote yi nekk ci loxoy Cour suprême taate bi di addu ca jamono ji ci caw li dox digganteem ak Mame Mbaye Niang bu Cour suprême dëggalee daan biñ ko daanaan ca cour d'appel njiitu Pastef du mën bokk mu fekk Pastef ci boppam am fukki at ba su tey anniversaire boobu fekk ñu tas parti bi teewul kilifay parti boobu dogu ci fal Ousmane Sonko ci wote yi ñoom waa Pastef xam ne tamit ne benn coow amul ci seen député parrainé Habib Sy wuteeg lool xalaatu ay nit ñuy gëstu ci wàllum politique Anta Babacar Ngom euh, nekk jigéen bu njëkk jàll parrainage bi xalifa Sall tamit jàll na ak parrainage ay député conseil constitutionnel nekk tey ci ñeenteelu fanu saytu parrainage yi daañu fa dem euh, fekk fa suñu reporter Mamadou euh, kon jeg Dieng hôpital Fatick tudd léegi hôpital Marième fay Sall dogal bi tukkee ca conseil des ministres bi woon démb ñenn ci waa Fatick rafetlu ko ñeneen nii nee am na ay kilifa Fatick yu gën a yeyoo tur wi daañ ci déglu reportage yu Aminata Goudiaby xibaaru bitim réew ak li ci yi gannaaw xibaar yi journal de la CAN di xibaar ñeel Coupe d'Afrique bi war a am te réew ma Côte d'Ivoire mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne su lu ñu cay faram El Hadj Ndiogou baax moo nekk ci machine bi mbokkee ñi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaar yi dikk bëccëg yi dañ koy door wàllum yoon ak mbirum Ousmane Sonko tey nag ñu koy àtte ci kanamu Cour suprême ci coow li dox digganteem ak Mame Mbaye Niang loolu nag euh, mën a am njeexital ci bokkam ci wote yi fekkee dañ ko daan ñi nga xamante ni euh, mooy Ousmane sënko kon euh, du mën a bokk ci wote yi ñu dëgmal dañuy dem foofu lay cotaate bi di Cour suprême fekk fa ndaw lañ fa nekkal jamono ji Mamadou Sy Mamadou ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fayal âge ñu mën a jàpp ci li gum foofu ca Cour suprême. Euh, jàppale ni daal bu euh, midi joteel euh, avocat yi nga xam ni um, ñoo fare ko Ousmane Boog ñoo layal Ousmane Sonko la ñu ci dugg ci li nga xam ni moom mooy pour pourvoi cassation bi ndaxte suba ba léegi. Euh, li ñu bëggoon moo di juge bi euh, bañ a euh, li nga xam ne moo di retenir pourvoi bi daal di koy yóbbu wala boog déglu conseil constitutionnel ba mu àddu ci li nga xam ni moom la ñu yëkkati ñu dippee ko exception d'inconstitutionnalité ndaxte El Hadj Ndiogou gannaaw bu ñu dugalee li nga xam ni moom mooy rapport principal bi am na beneen rapport boo xam ni ki nga xam ni moo di bi daan na koy lire ñu dippee ko rapport complémentaire ci rapport boobee la ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi leer Ousmane Sonko daal di dugalu ñu naan exception d'inconstitutionnalité loolu la waral nag ñoom bëggoon nañu euh, juge bi daal euh, balaa mu àttee euh, mbir mi mu daal di déglu ki nga xam ne moom mooy conseil constitutionnel addu ci mbir moomee waaye juge bi daal dafa wax ni du addu ci mbir moomee wax nañ leen daal nañu layoo ci li nga xam ni moom moo leen indi ni ki tey ji ñu daal di koy boole itam ci li nga xam ne moom mooy exception d'inconstitutionnalité suba ba léegi nag avocat Ousmane Sonko ñoo yoree kaddu ki avocat Mamba Ndiaye jëla gumu li nga xam ne moo di kaddu gi ci moyens yi nga xam itam jot nañ ko yëkkati juróom lañ ci mun a lim loolu mooy cinq mois yi nga xam ni la ñuy bëgg daal ñu daal di casser li nga xam ni moo di arrêt bu cour d'appel bu Dakar daal di joxe premier moyen bi jëm ci wàllum euh, violation de la loi maanaam gis nañu daal juge bi dafa daal di jalgati ay yoon euh, yu bëree bëre ndax gis nañu daal ci li nga xam ni moo di procès en appel Ousmane Sonko euh, bu ñu sukkandikoo ci ay avocat am jotul li nga xam ni moom mooy citation directe secrétaire général bu parti PASTEF bi woon moom la ñu daal di jox li nga xam ni moo di citation directe bi ñu daal di itam yëkkati beneen moyen boo xam ni ñu dippee ko nudité de l'arrêt waaye itam am na loo xam ni itam ñu daal di de base légale absence sax ba ci li nga xam ni euh, euh, moom euh, moo di li nga xam ni moom la ñu du duppee dénaturation des écrits mooy ay moyens yoo xam ni El Hadj Diogou loolee la avocat Ousmane Sonko daal yëkkati ñu bëgg nag juge bi daal di casser li nga xam ne nag moom mooy arrêt boo xam ni cour d'appel bu Dakar daal di joxe ngir itam ñu mun a attewaat xam ni moom mooy mbir mi ñu jàpp ni jot nañ fi nemmeeku hmm. ñenn ci ay leader yi nga xam ni ñoo faree ci Yewwi Askan Wi ak ci Lacoste mu mel ni Mamadou Lamine Diante mu mel ni itam Habib Sy ak Déthié Fall ñoom ñaar ñi ma mujjee sax jot nañu euh, retiré wu gannaaw bu ñu teewee ci li nga xam ni moom mooy euh, minutes yu njëkk ci biir audience bi El Hadj euh, Ndiogou. jërëjëf Mamadou Sy en direct foofu kan ca Cour ñi ñiy tey ji mbirum Mame Mbaye ñaw ak Ousmane sunk njiitu parti bi fi woon te ñu tas ko di fa parti boobu sax di Pastef tey ji ñeenti fan ci weeru janvier mu def nag fukki at gannaaw bañ ko sose woon waaye ndek parti boobu amatul ndaxte Touba euh, fitna fi amoon ci weeru euh, juillet bi ñu gën parti boobu nag euh, am taarix ràññeeku lool ak njiit li di Ousmane Sonko ci taarixu politique Sénégal wante nag jalti jalti bëri na ci jaar jaaram loolu yëpp dañ ciy dellu si ak Anna sa réew moo ne woon bàkku Pastef weeru janvier atum 2014 lañ ko sampoon ay ndaw fonctionnaire def li ni gannaaw ab assemblée générale seen jiit Ousmane Sonko ne woon inspecteur impôts et domaines daanaka Pastef moom la patriote yi seen bébét mooy yeesal langue politique gi atum 2017 la ñu njëkk a natt seen bopp ci ay élection fii ci Sénégal jamono yooyu Ousmane Sonko jiite coalition alternative du peuple ñu fal ko député ñaari at ci kanam mu soobu ci élection présidentielle yi système bi la fas yéene xeex ndaw yi gis ci seen bopp tax mu egg ci ñetteeli place ci élection yu 2019 gannaaw président Macky Sall ak ancien premier ministre idris Idrissa Seck février 2021 la yëf yi tàmbalee yàqu gannaaw plantu Adji Sarr ndaw si di tuumal njiital Pastef viol fekk Bayre Ousmane Sonko di gën a yokk moom nee na yëf yi complot politique la loolee waral mu waxoon militant yi ñu préparé wu weer lañ ci teg fitna jib ci biir réew mi fukki nit ak ñeent ñàkk seeni bàkken ci événement mars yooyule gannaaw bi ñu tegee loxo Ousmane Sonko lu ëpp at réew mi nekk ci tension ndax coow boobee beneen coow ñoo fekk si ko di dossier Prodac ci digganteem ak ministre Mame Mbaye Niang taxul Pastef daanu ci firndeel élection yi weesu opposition bi ànd ci coalition Yewwi Askan Wi raafle gox goxaat yu bëri dem sax ba daal di imposer cohabitation ca assemblée nationale gannaaw élection législative yi ci topp 1er juin 2023 Ousmane Sonko yoon daan pour corruption de la jeunesse ci dossier bi nga xam ne moom la sekk ak Adji yeneen manifestation dal di jip waaye lu ëpp tuuru kilifa yi jël dogal dal di tas parti Pastef seen njiit mooy di nekk ca kaso ba ana Rocha euh, seen njiit loolu nag euh, di Ousmane Sonko ak euh, parti boobu tey fukki at biñ ko taxawaloon donte tas nañ ko ñi nga xam ne nag ñoo fa bokk te liñ gën a gëm gën a dogu ci fal Ousmane Sonko ci ngoon nag 25 février bi ñu mal ki nga xam ne mooy directeur école du parti bu Pastef daaray Cheikh Anta moom Moustapha Sarré ne ak lu mën a xew gëm na ne Ousmane Sonko day bokk ci wote yi ci geneen wàll sax lu jëm ci député Pastef yi parrainé Habib Sy nee na nag loolu ñoom ñëpp ñoo ci ànd amul. kenn nga ko koy dingat dañuy koy déglu moom Moustapha Saxé de benn mébét rek la am fii fii ñu toll nii fi may wax ak yow nii mooy fexe ba Ousmane Sonko nekk cinquième président de la République du Sénégal ca ngoonu vingt cinq février deux mille vingt quatre février bii ñu dëgmal bëgg nañu incha allah Ousmane Sonko nekk cinquième président du Sénégal ñu woteel ko dès le premier tour ba nga xam ne ba bu nu yeewoo ca suba sa Sénégal nekk beneen Sénégal gàllankoor yi way bari na <laughs> parce que ñii ñu jàkkaar lool ñoo bañ mu nekk candidat yore administration lépp lu li li nga xam jumtukaay ba ca moom la ñu yore bañ mu nekk candidat waaye nag fu ñu waxee droit rek comme na ko professeur ba waxee woon fépp fu ñu waxee droit rek Ousmane dana am ndam ndaxte amul dara lu war a mën a gàllankoor candidature incha allah dina nekk candidat incha allah sénégalais yi dinañu ko woteel le 25 février te incha allah dina nekk lu président de la république bu réew gis nañ ñu député Pastef yi ñoom ñoo parrainé candidat bii di Habib Sy loolu ci parti bi euh, ndax an ngeen ci euh, dogal boobu nu ngeen ko gisee. waa xam nga député yi nag dañoo am seen amul benn parti bu war a imposer député la mu war a def député moom mooy xalaat la mu war a def def ko ndax député député askan wi la te ñun li ñu def nii mënuñu cee am lu ñu metti ndaxte kii ñu kii ñu pare parrainel suñu allié la Habib Sy allié bu mag la ci suñu parti kon kooku bu ñu ko bu ko député yi pare ne amul benn problème te jàpp naa ne Euh, militants yi loolu mettiwu leen gis naa ni sax au contraire ñoom jàpp nañ ne lu war la waaw ndaxte candidat la ci ci candidat ci candidat mënu cee jur coow ndax parti bi boo ko seetloo bi ñu juddoo ba léegi yàlla ngi ñu ñuy musal ci seytaane ba benn coow amul ci biir parti ñun suñu parti organisation démocratique la euh, ñi ko jiite xam nañu loolu ba nga xam ne xalaatu ñoo jalgati yoon ba militant yi di am lu ñu leen di ŋàññee mu nekkoon Moustapha sare moom nag mooy directeur de l' du parti euh, di euh, école parti fu ñu koy tëddee daaray Cheikh Anta Diop ci mbir moom sax la ñuy des di di ay député Pastef ne kii di Habib Sy ndax ba njàngat lañ ci mën a def ay nit nag ñuy gëstu ci wàllu wàllum politique gis ne mën na jox caaw ci biir parti boobu ndaxte nee na du ñàkk ñoo xam te ne eh, duñ ci ànd te nag eh, si militants yi tamit am na ñoo xam te ne Ousmane Sonko képp la ñuy gis gisuñu keneen ñu se ñu déglu ci gëstu Salimata Aw Habib Sy moom jàll na état bu parrainage yi gannaaw bi nga xamante ni fukki député ak ñett ñoom yu bokk ci parti Pastef bi ñoom ñoo ko parrainé mu nekk. ab naka ñu bëri di xalaatee rawatina ñi nga xamante ni seen xam-xam màcc na ci wàllum politique wante nee nañu loolee mën naa indi ndëgg sërëx yu bëri docteur Demba Gueye moom analyste politique la. te Habib Sy non seulement il n'est pas du PASTEF mais aux yeux des électeurs électeurs yi ni ñuy xoolee en tout cas les les les ténors Askan Wi boo doon lim tey yan candidat ñoo mun a porter la candidature du PASTEF. pour nga gis ku lim Habib Sy day xaw a jafe. Mhm. loolu dafa am lu ko waral parce que Habib Sy compte tenu de son âge. Euh, euh en réalité électeurs yi booleetuñ ko parmi les challengers qui peuvent créer des problèmes au ki fi nekkoon président confédération bu yeewee askan wi moom niru na njiit te sax nag am na taxawaay bi te parrainage bi kenn du ci mer ndax ku si nekk sa intérêt ngay xool Assane Samb moo gisee nu ni mel. waaw tànnet la boo xam ne tànnetu remplacement la bu fekkee soo Sonko jàllul mais lu lu lu xel mën a nangu la ndax Habib euh, quand même nit la koo xam ne am na expérience politique te dal na te mag la euh, calme na ci en tant que projet ci Sénégal amaan na Habib mën na ko écarter. koo xamante ne dina leen wan ginnaaw. wala mu trahir leen. wante bu loolee lépp weesoo ay frustration ak ay wan ginnaaw mën naa am ndax kat donte ni nag Habib Sy wax na ni Ousmane Sonko bu ñu valider candidature am moom day rocc ci bosam wante tànn gi ñu nar a tànn Habib Sy mën naa indi ay sooxe. exactement dans le Pastef mën na indi ay frustration parce que Habib Sy coordonné na Yewwi Askan Wi mais xam dafa am fu mu yem. alors que boo jëlee quelqu'un comme El Malick ak ñeneen ñi pratiquement ils ont tout donné. loolu day moom du ci ñàkk comme ni nga ko gisee ci Amadou Ba rek ci Benno nga gis ni am na ñu fipp ñoo xam ni kenn faw ko woon. si ñu fàttali ko ku jege Ousmane Sonko la te sax nag lu yàggul dara waxoon na ni candidat lay nekk ci présidentielle yi wante tànn gi ñu ko tànn ndax. du tax ñu bëri ñu bokk ci ñu sos Pastef du ñu mer analyste politique yi ni loolee mënta ñàkk benn yoon. Salimata Aw inaax tegal fukki minute teg ñaar ca Comboñ nekk ca Marina Dakar ak ca Cilmax Mbakol. ak RFM kumpa jeex na. wéy ji xibaar yi ni ñu koy defee fan yii yëpp kon conseil constitutionnel di saytu parrainage yu ñi nga xam ne ñoo bëgg nekk mbëx ci élection yi ñu dëgmal euh, tey di ñeenteelu fan bi euh, liñ ci mën a jàpp moo di ne kii di Anta Babacar Ngom daal di nay jàll naka noonu tam xalifa Sall am na ñenn ñoo xam te ne leen tey dañuy dem ca conseil constitutionnel fekk fa su ndaw la fa nekk bu Dieng Boubacar ñu ngi ñu ngi lay fay El fu ngeen toll jamono ji. Euh, jamono ji may wax ak yow ki nga xam ne moo di mandataire Alpha càmm moo génne ci conseil constitutionnel moom nag ñuy xaar ba ñuy xam lan la jëlee ci biira wante nag ci xibaar ni nga ko doon waxee léegi ci suba mbir mi ki ko door moo di Abdoul mbay nekkoon Souleymane Diawrigne moom nag dafa war a dem ci ñaareelu tour bi ngir valider euh, yenn ci ay parrainage am ndaxte euh, li muy régulariser sax laay wax ndaxte li mu jot a am ci ay parrain yu mu valider toll na si trente mille bi mu génnee ki fa nekkoon nag moo di Cheikh Alassane Sène moom dañoo invalidé ay parrainage am al al Ould Assane Niang moom tamit dañ ko recalé ndaxte daanaka euh, lu ëpp juróomi junniy parrain rek moom la validé gannaaw ko ne Khalifa Ababacar Sall xam ngeen ko moom si ay député la indi ñu pare parrainé ko maanaam fukk ak ñetti député ñoo ko parrainé ba tax daal li nga xam ni nag moo di parrainage am jàll na amul benn problème keneen koo xam ne bosam jàll na moo di Anta Babacar Ngom mhm. moom lu ëpp quarante cinq mille parrain la daal di validé tax nag mu jàll premier tour doon tax jigéen bi nga xam ne nag moo njëkk validé li nga xam ni moo di ay parrainage am depuis bi ñu dooree li nga xam ne moo di contrôle bi fii si conseil constitutionnel am Aminata Touré moom dafa war a dem second tour ndaxte lu ëpp ñaar fukki junni ak juróomi parrain rek la validé war a am am na sax lu tollook euh, dix-neuf mille euh, huit cent doublons fi mu toll nag moo tax mu war a régulariser lu tollook dix-neuf mille nouveaux parrains ngir mën a jàll li nga xam ne moo di parrainage yi am yaakaar bokk sélection présidentielle yi loolu daal moo fi amagum bu weesoo euh, gannaaw Alpha Thiam génn na ñàkkul ni fi mu toll nii mandataire ki nga xam ne moo di Amadou Ba candidat Benno Bokk Yaakaar moo war a dem si commission contrôle parrainage bi bu fa jógee El Hadji Mamadou maam booy Diawo hmm. moom moo fay dem euh, kii tëj bëccëg gi nag moo di Ibrahima abu nget bu weesoo loolu nag ngoon gi am na ñoo xam ne ñoo war a jàll El Hadj jërëjëf Boubacar Dieng nekkoon en direct ci conseil constitutionnel wax nga ko kon Anta Babacar Ngom jàll na mu doon nag jigéen bu njëkk bu euh, jàll gum ci parrainage yi moom nu am lu toll ci quarante cinq mille parrain Euh, ci dix régions nag daal dina fay euh, daal dina fay am parrain yu doy Isaac Diouf mooy mandataire bu Anta Babacar Ngom jiite eh, arc di alternative alternative pour la relève citoyenne ñu déglu kàddu yi Isaac Diouf ci micro Boubacar Dieng. li ñu mën a jàpp rek mooy wax alhamdulilah di sant yàlla di julli ci yonent bi salallaahu alayhi wa di sant tamit suñu ay waajur. mais surtout di sant sénégalais yi nga xam ne nii ñoom ñoo wóolu Anta ba ko pare ne waaw am nañu quarante cinq mille deux cent trente huit sachant bi nga xam ne nii moom la ñuy laajte pour nga jàll mooy quarante quatre mille deux cent et un ñun si fukki région la ñu misé woon te fukki région yi ñu misé woon yëpp yàlla def na si jàmm sotti ci ndox bu sedd ba fukki région yëpp yi ñu dugaloon yooyu la ñu validé kon ñu ngi ciy sant bu baax di ci gërëm yéen tamit ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ndaxte ku leen gis fi ngeen di yenn suba ba ngoon donc seen liggéey metti na trop yéen a ngi def lu mucc ay pour lan informer les sénégalais juste et vrai kon yéen amoon nañ cant ak ngërëm. ku nekk li nga def nga mën a xam ndax Anta déjà boo xoolee suñu turu mouvement bi alternative pour la relève citoyenne donc ça voudrait diir que dafa am ay valeurs citoyennes yoo xam ne nii moom la ñuy cultiver ci kaw valeur yooyu. du ñu wax li nga xam ne nii moom moo ñu wóor duñ dugg si loo xam ne nii wóoruñu mais li ñu def lañu xam mooy Anta ñëpp gis nañ ko sur le terrain donc lii du surprise lii du surprise di kaddu yi Sakho Diouf di mandataire bu Anta Babacar ngoom nga xam te ne jàll na parrainage yi ñi ñoom jàlluñu war sax ñu am mbetteel fas yéene wéyal xeex bi muy nag waa CAP 2024 bu Alioune Sarr naka tey ji nag ci suba yëg ne ne koy tukkalaame ci conseil constitutionnel ngir dingat li nen ne seen i parrainage matul Mamadou Ndiaye mooy mandataire bu Alioune Sarr ñu déglu ko euh, ci micro Boubacar Dieng. lu war a requête boobu ndaxte le 2. ñun ñëwoon neen fi pour contrôle des fiches de parrainage li li li li ñu gën a jaaxal mooy am na région lëmm bu ne région Kaffrine dañ ko dindi si suñuy suñuy parrain bu ñu leen bi gën a doy waar aussi mooy région de Louga au lieu que ñu defal ko si région de Louga dañ ko dugal si région de de Ziguinchor léegi nag boo jugee Louga dugal ko si euh, si si si Ziguinchor booy boo koy seet les parrains là boo koy seet si Ziguinchor doo ko fekk loolu moo tax ñu ñëw tey bu ñu bu ñu saytoo mbir mi si seen ordinateur yi vraiment gis neen ne liggéey bañ fa gis mu nekk liggéey bu doy ndaxte si cinquante cinq mille neuf cent trente neuf parrain déposé ñoom ñu ngi ne ñu ngi ne fanweeri junne ak ñaar ak juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk nit yoo xam ne ñooñu parrainé ñu ne xaw gisuñu leen si si mu nekk lu lu lu doy ndaxte eh, ñi nga xam ne ñooñu parrainé ñu wër Sénégal commune Sénégal yi ñu wër ko am fukki région yi ak ñeent ñu génneel ñu euh, fanweeri junne ak ñett yoo xam ne gisuñu leen ba ñu ba ñu joxee clé bi ba ñu ba xoolaat kele bi gis neen si nit ñoo xam ne vraiment ñu ngi si fichier bi parce que ñooñu voté neen élection yi passé ñu nekk lu bëri lool nekk lu bëri lool si Sénégal yëpp li gën a doy waar it dekk Soum dëkk si commune bu euh, Ngoundiane nekkoon candidat si élection yi nga xam ne mooy élection législative locale yi passé moom ñu ne bokkul si fichier bi gisuñu ko si fichier. mu nekkoon euh, Mamadou Ndiaye di mandataire bu Alioune Sarr euh, di euh, candidat wu coalition CAP 2024 fukki minutes ak juróom-ñett moo tegu ci une heure ci pël ga ak Ndiaye Ndiaye nekk ca Fatick. pour man RFM mooy rajo bi gën jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu wax leneen ci wàllum xibaar yi jël na jëm ci dogal bi nga xamante ni euh, conseil des ministres jël na ko démb di nag euh, hôpital bu Fatick tudde nañ ko léegi hôpital Marième Faye Sall euh, tax ñu jox askanu Fatick kaddu gi ci niñ ko gisee ñenn ñi ne mérito na ko ndax taxawaay bi mooy taxaw askan wi foofa di leen di jàppale ñeneen ñi ñoom am na ay kàngam ak kilifa Fatick yu gën a yeyoo tur woowule reportage am bi natt gujaab yi comme ni ñu koy gisee saa su nekk liggéey bi mi ngi dox ni mu waree ci hôpital régional bu Fatick ñi nga xam ne ñoom ñoo feebar wala sax ñi leen gunge ñi ngi défilé ci couloir yi bërëb bi nag fi mu ne nii mën nañ ko woowee hôpital Mariam Faye Sall Khady Koli Fatick la dëkk moom nee na yëgul woon mbir mi waaye nag kontaan na ci trop. mérité na ko parce que dafay def social ku feebar soo ko bindalee rek ñi nga xam ne gis naa ci ñu gën a bëri nga xam ne ay opération ay affaire ak yooyu mais boo ko bindalee lettre à may sa may koor su Euh, nit ki loolu moom gis naa ko maa ko fekkee seede yu ni mel bëri na Lamane Faye war a am lu tolloog juróom-ñaar fukki at village nguy la jógee dëkk bu sorewul dara Fatick la ku ma bokkal benn baay yaa ngi dégg bu baax dafa amoon góom ci tànk bi ñu dagg ko Maram am moo fexe di fexe di ko tànk boo xam ne gi muy dox soxla man nag gisuma Mariam waaye lu baax li muy def fale maa ngi koy gis man mu sol ay lunettes wekkoo sac à dos Aliou Ndour ngi génn ci benn banque bu nekkee ci dëkk bi moom nag nee na contre ko waaye dafa jàpp am na ñoo xam ni ñoom réalité. Mariam septième dame d'affaires kii dimbale ñu bëri aussi pour man nag mënoon na jël beneen figure emblématique comme ay waayu jigéen jigéen yeneen jigéen yoo xamante ne mënoon mënoon jël euh, tur bi man loolu laa gisoon. waa ji nga xam ne nag dafa xaw xees xalaat na lu ñu waaye nee dafa jàpp ne lii bi ñu ko defee rek dafa fekk ne dañuy delloo njukkal première dame. Ah, yenn figure yi bon c'est vrai que loolu aussi am na si mais ñooñu lu passé moom passé nan waaw boobu nag Cheikh Kanté moom moo ko jiitee moom mi président conseil départemental bu Fatick Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby euh, jigéen ñi rawatina ñu bokk ci kuréel gii di CNCR mu ay béykat si ñoom ñu bëgg ñu gën a leen bàyyi xel ci loi bi nga xamante ne mooy yoonal wàllum càmm ak mbay ci réew mi nee na nag jigéen ñi dañ leen ci war a boole su ko defee ñu bay ci seen war bu mu mat sëkk ñu fësal lu ni mel ci ndaje bu ndarmal ca diwaanu Kaolack Fatma saytuwaat lii di loi ñeel wàllum agro sylvopastoral ngir ñu bàyyee xel jafe-jafe baykat yu jigéen yi nekk ab objectif bu soxna yi nekk ci CNCR tax ba ñu sàkk ñu daal di leen ci boole Yaram Fall nekk seenum jiital. am na ñaar fukki at boobaak léegi am na soppiku yu bare yu fi am moo tax ñu toog waxtaan pour xool ñun en tant que jigéen di yëngu ci àll àll bi di yëngu ci napp di yëngu ci sàmm di yëngu ci bay. lan la ñu siy joxe sunu wàll pour que loi boobu mu sóoraale mbébét ak bëgg-bëggu jigéen ñi nga xam ne noo nekk ci biir at yooyu. lëkkaloog élu lëkkoo yi yeneen kuréel yi ñeel wàllum baykat yi ak yeneen lu war a mën a nekk la ngir ñu mën a relever. ay défi loolu moo tax boo koy demee ba di ko joytu da nga ciy soxla képp koo xam ni xalaat nga ni bu si jàppee sa jooytu bi dina am saafara di nga ko si jàpp collectivité yi ñëpp soxla nañ leen mais doona soxla tamit suñu yeneen kuréelu baykat yoo xam ne ñu ngi ci biir Sénégal ñun ñëpp ñu xàcceendoo di dóorandoo parce que loi bi bu ñu ko adopté képp kuy baykat ak foo mënti nekk ci biir Sénégal nga bokk CNCR ak nga bañ fa bokk di nga ci gis sa bopp. jot ci suuf yi amal lii di financement si soxna yi ak lii di statut paysan nekk lu soxla soxal ba tey yile acteur tax ba ñuy sàkkuwaat ci jëw jëwriñ bu ñu dénk wàllu mbay mi Fatou Mbow Kaolack rajo Futur Media. Fatou Mbow bu ñu jógee di Saloum dañuy dem ca Njàmbur ca diwaan diwaanu Louga rawatina dëkk bi di Madayana dëkk boobu nag askan wax ña doon euh, wane seen naqar ndaxte dafa mel ni dañ leen fàtte ci réew mi ñu bari bu fejukaay am ñu tali ak euh, courant ak yeneen tax nag ñu bëgg kilifa yi bàyyi leen xel. leeral yegg Nafisatu Njaay yuuxu yi di firndeel ni askanu Madayana mer ba futt lañ def boole si jaaxle ndaxte bi ñu sancee seen village bi ba tey ci lëndëm gi la ñuy dund ñoom nag ñuy xamle ni lëndëm googee bëri na lool ay conséquences yu ñu jural Salifou Guèye man de village Mad ñun daal Kora moo gën nekk suñu jafe-jafe ndax ba tey ñu ngi taal lampe torche lampe pétrole ak lëndëm gi metti lool lëndëmaay bi nga xam nga bu leen demee kay lu ne mën na fa am jaan yaa ngi dox ci biir kër yi sàcc yi ñu ngi dox ci biir kër yi lépp nga fiy dox lëndam kay ku ne xam ne moom njubadi lay woote courant ma nga ni kon metti na ñàkk ndox mu baax yàgg doon jafe-jafe yu askanu Madayana ndox mu xonk cay la am amuñu ndox mu normal il y a aucune activité liée à l'eau qu'on peut mener dans ce village Madayana ak yeneen village yi ne ca wetam ruqe gi ñu ruqe jaaduwul bu fa yeewoo Babacar la di doomu dëkk bi fii pour nga am oto bu la fi andi jëlee oto ndar dem Dakar moo gën yomb jëlee oto Louga mu andi la Madda parce que tout yoon amu fi tali bi ñi ngi ko fi defaroon 2008 2008 ba léegi du benn camion bu ñu fi sotti waat pour gratter waat tali bi yi mu ngi jógee fii Coowoor ba croisement raw askan wi di yeewoo ci village bi nga xam ni diggam ak commune bu Léona toll ci juróom-ñetti kilomètres diggam ak Louga toll ci fanweer ak juróom tax sax ñuy sàkku ngir ñu teg leen ci anam yu gën a ñoŋ ñu xamle ne bu kilifa yi àdduwul ci seen naqar yi lee dinañu wëy di amal yeneen doxub ñaxtu Nafisatu Ndiaye Madayana rajo Futurs Médias. Nafisatu Ndiaye dañuy daaneel ak mbirum accident bi ñu leen doon wax euh, waxtu wi démb am ca la ko euh, parc Niacoulacba ca Kédougou chauffeur camion bi nga xamante ne moo taxawoon ci tali bi kenn gisu ko ba ñaari oto mbëkkante chauffeur bi nag dafa réer meng daw démb ba léegi kenn gisu ko ñu fàttali ne ñaar nit ñàkk ngeen seen bakkan ci accident boobu ñeent jële ci ay gaañu gaañu eh, di gaañu gaañu metti sax waral ba léegi ña nga ñu téye eh, ca hôpital régional Amath Dansokho bu Kédougou. RFM bitim réew. xibaaru bitim réew Georges Dethié Diop lañ ci àndal ñu ngi lay nuyu. Mali lañ koy tàmbalee parti opposition bi di Sadi euh, ba matul ci tas ko la jëm. la waral moo di ay kaddu ya nga xamante ne euh, njiit la njiital parti boobee yëkk woon na ko jaarale ko ci euh, réseau sociaux yi di nga doxalinu autorité kilifa yi transition ba loolee tax nag ñoom ñu jël yoonuk say parti boobee déclenché nañ sax ab déclenché nañ mbir mi ndax yóbbu nañ ko ca yoon Nafisatou Sila gouvernement bu Mali bëgg seeyal parti bi di saadi jaarale ko ci justice dafa jàpp ni kii di Omar ko li mu wax ci réew mi yépp yàq moo ko tax a jóg moom nag mu ni loolu taxu ko jóg ndax li mu bëgg rek mooy jàmm daal di dellusiwaat ci réew mi te lépp loo xamante ne rek guerre la jaru ko fi mu wax ak itamit njiitu réew Turquie di Recep Tayyip Erdogan ñaan ko bu mu jaayati ngànnaay rawatina ay drone réewu Mali waa RFI jot ko mu daal bëgg mooy jamono ji képp ko wax rek mu fexe ba daal di ko naan ràpp ci kaso bi ba noonee mu bëgg seeyal partem bii di saadi Omar Mariko depuis 2022 la gàddaay ragaloon ñu sànk ko gannaaw ba mu waxoon ni armée bu Mali da doon def ay exaction Omar Mariko nag ne lépp lu mu wax moom dong la engagé waaye engagé wul parti wam gannaaw PSDA Sadi mooy ñaareelu parti bu gouvernement bu transition bi bëgg dissoudre jaarale ko ci justice George dañuy wax ci leneen jëm ci ayu yi diggante euh, Hamas ak Israël secrétaire d' état américain moom nag ñu ngi koy xaar ci réewum Israël. ñoom euh, ki nga xamante ne moo di Anthony euh, Blinken euh, moom jóg war naa jóge tey fële nga xamante ne moo di Washington mu di ab déplacement bi nga xamante ne nag ñu ngi ko nemmeeku gannaaw guerre bi di gën di tar diggante Israël ak Hamas te boobu mu sax mu dem ba ci yeneen diwaan ya gannaaw ab frappe nga xamante ne tax na ba ñaari lu njiitu Hamas Saleh Al Arouri ñàkk bakkanam ak itam ab explosion wa nga xamante ne ca Iran démb tax na ba juróom-ñeent fukki te ak eh, juróom ñàkk ci seeni bakkan njiital diplomatie bu Amérique nag eh, di dem Israël bëgg eh, guerre boobee bañ a weesu fi nga xamante ne moo di Gaza. tey wax ci Soudan dellu si Afrique wax ca ca ak ay woo fa am laaj bi di ne ndax weer nga naay danañ ci am. paramilitaires yi di FSR ñoom daal nee nañ noppi nañoo soobu ci ay waxtaan ak euh, l'armée bu Soudan ay waxtaan wa nga xamante ne ci saa si lay doon te amul benn condition wañ cay teg Papa Ibrahima Ndiaye force paramilitaire de soutien rapide yi lée nekk ci Soudan lëkkaloo ak coalition civile Takadoum signé nañ déclaration Addis Abeba te di woo armée bi pour fekk si leen ci loole déclaration bi le dëxëñ na ñu delloo si millions ngi doomu aadama yi nga xamante ne ni dañoo génnoon dëkk bi te di woo ndaw civil yi ci waxtaan bu jëm ci wàllum delloo si jàmm ci biir réewu Soudan chefu coalition Takadoum di Abdallah Hamdok di moom mi di ancien premier ministre te FSR ak armée soudanaise jëlee ko fii depuis octobre 2021 am na yaakaar ni mën nañ am ndam ci boobulee wooteb jàmm collectif boobu li ko tax a jóg mooy teg ngànnaay yi te woote jàmm ci boobule réew mais ba tey gis nañ ni loolu am na ay lënt lënt it yi war a mën a tax jàmm delloo ci Soudan mu gën a gaawee malgré bépp jéego waxtaan pour delloo si jàmm si Soudan guerre boobule def na juróom-ñeenti weer te jur na ay yàqu-yàqu yu am solo ci boobu le réew te yooyu yàqu-yàqu dina am njeexital ci dundinu askanu Soudan rawatina ci wàllu xiif accord yi nga xamante ne ni moom mooy aar waay civil yi donte États-Unis ak Arabie Saoudite def nañ ci ay jéego yu am solo Sierra Leone moom ah, njiitu réew ma woon di Ernest Bai Koroma inculpé nañ ko démb ndax trahison ci ah, mbirum ah, coup d'état ba nga xamante ne mujjuta antu ci weeru novembre gi ñu weesu ci communiqué le ministère de l'information ak de l'éducation civique xamle lu ni mel ñaar fukki fan ak juróom nag ci weeru novembre gi ñu weesu ay nit ñu bëri ñoo yoroon nganaay song ca capitale ba Freetown fa nga xamante ne foofu la ñuy denc nganaayu réew ma ak itam ab kaso wa nga xamante ne eh, ca mujjanteel ga ñu bëri génne nañ leen euh, ca kaso boobe ñu mujjee daw gën kaa tuuti fukki nit ak euh, juróom-ñett ci euh, takki der ya ñàkk nañ ci seeni bakkan lu ëpp juróom fukki nit ya nga xamante ne bokk ci ay officier militaire ñu njort ne seen loxo génnul ci mbir moomee ñu teg leen loxo ca Ouganda moom ab hélicoptère moo daanu ab hélicoptère yu nga xamante ne def bokk ci jumtukaay yi xeex terroriste ca RD Congo ñett nit ñoo ci ñàkk seeni bakkan ñaari soldat ak benn civil ñu ne nag temps jubul daal maanaam jaww ji ak euh, ngelaw ga nga xamante ne moo fa am moo waral boobee accident lool ki yor kàddug euh, force de défense du peuple congolais xamle hélicoptère boobee nag doon naaw jëmale ca Congo foofee nga xamante ne l'armée bu euh, Soudan day xeex force démocratique allier ab groupe rebelle wa nga xamante ne dañoo lëkkaloog ak organisation état islamique. xibaaru tàggat yaram dañuy wax ci euh, ñàkkum jumtuwaay tàggat yaram ca dëkk bii di Cilmaxa nekk ca diwaanu Thiès stade ba fa nekk amul gazon amul tamit projecteur waral sax ba yenn ndaw footballkat yi dëkk ca Cilmaxa dañuy dem ci yeneen dëkk di fay football euh, ngir euh, nag ñàkk jumtuwaay yoo xam te ñu ngi koy dund foofu le ndax kon moo waral dañuy dem foofu feneen di fay football yi. reportage ci Xanta Diop. stade bu bees bu cilmaxa bii de mu ngi ci jafe-jafe ndaxte estade bi neem pare na ba ñu ubbi ko waaye ganus la ndaw ñi ngir ñu football fi jafe na lool amul gazon te ndaw ñi ñi ngi sàkku ñu defal leen fi ay projecteur ndax ñu fiy mën a fubal ci guddi gi Khadim fay moom mooy président zone bu Thilmakha ah Thilmakha le stade naa ni euh, un gazon synthétique ñoo ko gisandoo fii ci Thilmakha stade bi gis ngeen amul gazon ci ganus la ñuy fubal te ñi ngi sàkku nag kilifa yi bu amulee projecteur sax ñu defal ñu fi ay lampadaire solaire ñu di fi football guddi gi. nous demandons aux autorités bon ils peuvent le faire dans les plus brefs délais. de nous octroyer des kii ñu tudde woon final bi. di Cheikh May Diop nee na ndaw Thilmakha de war nañ leen taxaw bu baax ndaxte fii ñu dëkke de ruqe na sori na lool waaye ay jumtukaay yu jëm ci wàllu tàggat yaram dañu koo néewle. xale yi jàmbaar lañ. parce que tournoi bi metti woon na yombut. boo ko suivre ay match nul yu bëri am na fi. ñoom nekk nañ ci ba heure bi ñu ngi ci final bi. ñi ngi def tuu pour que euh, football bi avancé quoi. di woon final bu metti ci diggante ASC xale yi tey bu Kër Mandoumbe ak ASC jamono bu Cilmaxa ci mujjantal gi nag jamono bu Cilmaxa moom moo ko RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta gannaaw na waxtaan yi foofu ca Cilmax dañuy dem ba bitim réew wax ci euh, dix-neuvième journée bu Liga di championnat bu Espagne euh, tey nag ñetti match am na bu njëkk bi nag ci kanamtu ci 16 lay doon diggante Osasuna ak Almeria beneen bi di am 18h15 Séville mooy daje ak Athletic euh, Bilbao buñ ci noppee nag 20h30 Las Palmas mooy dalal. Euh, FC Barcelone yeneen i xibaar ñeel tàggat yaram rawatina sunu gaynde yi ak Coupe d'Afrique bi ci kanam tuuti lay doon ci journal de la CAN ak Cheikh Tidiane Diagne. CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal DSL ak seen bi di Dekakila direction de la santé mère enfant soumari.com Kenkeri le grand jaxaay ñoo ne ni may li ci yéene kaay yi. li ci yéene kaay yi dañ ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ponkal yi ci géopolitique bi ak seen jël yu takkarnaase yi ca conseil constitutionnel l'observateur xëy na ci defub taxaw seetlu ubbil yéene kaay bi commission bi càmbar dossier parrainage yu candidat yi contrôlé na démb lu mat ñaar fukki dossier ñaar ca ñoom ñoo ca jàll am na yeneen juróom-benn yu war a dem defaru juwaat ngir jaaraat ci kanamu commission ba am na lu toll ci fukki candidat ak ñaar yoo xam ne l'observateur ne nañu commission contrôle parrainage bi dafa invalider seen jàll parrainage l'observateur mi ngi ñuy xamale Aly Ngouille Ndiaye la ak Habib Sy professeur Alassane Daw nañu ci l'observateur li jur li xew tey mooy renouvellement gu xóot gi am ci classe politique bi seeni mbir doxul nañu ko doon séento ñooñee ñu tuddee ay ténor ci langue politique gi Walf Quotidien mi ngi ñu wax ne lii ram bu yeggee ca ñeg ba du baax ci ñoom li bon dëgg ci candidat yi ak seeni parrainage anki dina kay nee nañu mooy doublon yi ndax bari ngi ñuy kii di Habib Sy ak Karim jàll nañu parrainage am na juróom-benn ténor yu war a delluwaat ca kanamu commission ba muy Alaaji Malick Gakou di Aly Ngouille Ndiaye Mouhamed Boun Abdallah Dionne Souleymane Ndéné Ndiaye Mamadou Lamine Diallo ak Serigne Gueye Diop Diop Decroix El Hadji Ibrahima Sall Adama Faye Babacar Diop Thion ak ñeneen journal bi nee nañu ñoom jotuñoo jàll ñu jàll ci journal bés bi le jour mi xëy jàll ci candidat yi jàll ci parrainage bi muy Habib Sy journal bi journal Le Témoin moom Diagne député bi président Macky Sall tànnoon def ko coordonnateur national pôle parrainage bu Benno Bokk Yaakaar xëy na di defal waa Le Témoin le point ci parrainage bu Benno Bokk Yaakaar yi ko président Macky Sall dénkoon ma nga fay wax ne bu ñuy xool ci réalisation ak ci ay vision Macky mooy le meilleur ci Afrique ba Afrique daj mu ne bu fi jugee li ñëpp di jàpp ci moom dana bokk ci liggéeykat bu amul sago ci askanam un bâtisseur waaye it président bi continuité gi ñu am na ci seen waa kër ñoom waa Benno Bokk Yaakaar ñu fipp journal Tribune moo ko bind ñi ñuy wooye les forces de Matam tey cadre yu Benno Bokk Yaakaar nekk ca ñoo doon conférence de presse démb Tribune nañu fa la waxee ne bëggatuñu kii di Farba di wéy di doon coordonnateur départemental bu Benno Bokk Yaakaar yamuñu ci ndax sàkk nañu ci président Macky Sall mu woo Farba ci ruq wax ak moom yamale ko tegaat ko plaasam fexeet ba discipline Sonko Mame tey la cooki final bi l'observateur moo ko bind la si nekaay ci delis ak ñun ba dañu wax ne tey la cour suprême di lijjanti pourvoi en bi amoon ci coowal Prodac ak tuumay détournement bu 29 milliards bi Ousmane Sonko doon tuumal Mame Mbaye yoon atte woon na ko daanoon Ousmane Sonko juróom benn weeri kaso yu mu dul tëdd 6 mois avec sursis alamaanoon ko ñaari téeméeri millions yu mu waroon jox Mame Mbaye mbir ma mujjee ci pourvoi bu ñu ko joxoon doon ca ŋàññi ak a équipement médical bu toll ci milliards l'observateur ne nañu cour suprême dafa rejeté recours ba débouté ñu fa yóbboon recours ba ne leen dox leen foowi Carrefour médical moo àndoon ak i fournisseur médical yu ci mel ne Dimente technologie service et Sodemed yóbbu ab recours ca cour suprême doon ca tuumal ministère de la santé ne dafa jox ACD Afrique Conception Distribution marché bu toll ci 71 taxawoon ne marché bi marché bi gré gré la l'observateur nee nañu cour gisu ci lenn luy wane ne marché bi marché bi gré gré la libération yu ci xëta njëkk cour suprême validé na marché bi ndax nee gisu ca daray gré à gré ñu roñu roñu ñun delluwaat ci l'observateur wàllu yoon mu di justice ba tey waaye ci weneen anam ñi ñuy wooye ay interprète de justice mu di ñi nga xam ne bu ñu waree atte nit nit ki déggu li justice di làkk ba justice dégguñu li ne benn bés benn waay jaasi la ko génneel di ko dàq ci mbeddi ndax nee na da ko waxal lu mu waxul ba tax justice condamné ko CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal DSL ak seen marque bi di Dekakila direction de la santé mère enfant soumari.com Kenkeri le grand jaxaay ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi li ci yéenekaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye lañ ci àndaloon ñi koy gërëm bu baax a baax mbokk yi yéen tam ñu leen di gërëm mu nekkoon xibaar yi la Hadj Ndiogou Diène àndoon ceeg yéen euh, ci micro bi euh, ci technique bi Aliou Ba ak euh, Maysa Mbaye production Abdoulaye Diop ak Abdou Thiam ñuy gërëm baax chef d'édition Soxna Awa mbay ci kanam tuuti ni nga ko waxee journal de la CAN ak Cheikh Tidiane Diagne jëf ci ànd beeg RFM ñu yendoo ak jàmm